copine Isaac. Isaac. waaw ah, looy def. Isaac. ah defoo dara quoi tranquille quoi. tranquille quoi. sama. <laughs> tranquille quoi. yaa ngi géré quoi. on oh, décroche pas. ah ça décroche pas. c'est bon. c'est bon. allo. kooku kan la. allo. yow looy def nii. que def nii. ah. yow maa yow maa jàmm xanaa da nga doom. ah defoo dara. dara. tranquille quoi. tranquille quoi. <laughs>